rek ren loolu rek tax na 2023 nekk une année meurtrière quoi parce que jeunes yu dee dañoo bari dem nañ ba dep xam ay góor nga doon dégg mais am na sax ay jigéen yi doon jël gaal yi dee quoi. même des enfants. boo ko jëlee si angle boobu rek da gis ne si une année meurtrière nga jël ko ci beneen angle tamit nga nga ne premier 2 3 juin 2023 manifestation yi. 23 hmm. personnes tuées par balle. ci ci lañ joxe chiffre bu ñu avancé doo xam sax ndax am na ñu ëppam déet yaa ngi dégg loolu rek def na vingt 2023 tamit une année meurtrière hmm? nga demaat si beneen angle nga dem mooy début d' année janvier accident kilo ak Sakal hmm? fii 41 morts defe naa fii 19 morts hmm? boo ko totalisé léeg-léeg ay une soixantaine de morts soixantaine de si benn benn semaine xaw ma benn deux semaines loolu tamit boo ko xoolee dangay gis ne 2023 moom moom bu ci njàlbeen ba la annoncé ne ren moom année meurtrière lay doon yaa ngi dégg fu may waxee léegi loolu tey mooy li nga xamante ni peut-être mën nañu wax ay mort accidentelle ak yooyu te am na nag yeneen fànn yi mooy mort yi nga xamante ni c'est c'est provoqué mooy homici homicide yi ak féminicide yi parce que ren dégg nañ tamit mooy ñi nga xamante ni si wàllum genre ñuy yëngatu quoi mooy les violences faites au genre noonu lañ koy tuddee léegi man léegi bu njëkk les violences faites aux femmes la woon quoi léegi au genre lañ koy tuddee maanaam dañoo kaas ba sonn ren ndax chaque jour nga dégg benn jigéen bu ñu ray yaa ngi dégg bu ñu rey si ay anam yu doy waar ñu ñuy liste ñu naan la ren am na dix meurtres de femmes yoo xamante ni répertorié nañ yaa ngi dégg pour wan la rek na la maanaam côté boobu tamit da nga ciy gis ne. année bu doy waar la woon ci wàllum nit di ñàkk seen bakkan quoi mais si côté meurtre féminicide quoi nga dem si homicide tamit ñu ne la 2023 tamit waaye góor yu bëri tamit même si cas de figure dana leen maanaam maanaam le taux de criminalité wala laay wax parce que loolu tamit si benn côté si taux de criminalité dañ koy yóbbu quoi <clears throat> dafa augmenté ren si année bi maanaam année bi da ngay dégg ay crimes yoo xamante ni fa dafa yéeme daal surtout ay surtout ay crimes d'enfant nag. da nga koy gis waaye yaa ngi dégg naan am nay onze mineurs yu ñu rey say anam yu doy waar yaa ngi dégg maanaam bëgguma ci di lim ay tour quoi mais boo defee globalisation bi rek nii si diggante bu ñu la nee hmm, accident fi jot xew ba si màggal bi rek amoon na vingt et un yaa ngi dégg. Hmm. diggante accident yi immigration clandestine bi yaa ngi dégg hmm, ak meurtrier yooyu da ngay gis ne moom lu dinañ wax lu mu dee daal deux cent morts yoo xamante ni. maanaam te 200 morts yoo xamante ni maanaam lañuy répertorier nañ ko quoi sans compter nag tamit mën nañ ne am na ay personnalités yu bari yu yu fi jugee su mel ni l' avocat Ousmane Seye il est mort en 2023 moom laay wax yàlla na ko yàlla xare àjjana. Mm. benn personnalité politique la woon boo xamante ni ku ñu ràññee la woon si njiiru Macky Sall bi. Mm-hmm. am na tamit benn acteur bu ñuy woowee. tëddati waay. Jean Paul Dalméda bokk na si personnalité yi gën a marqué nit ñi. ren si année bi quoi maam ngay gis ne ko année boo xamante ni épargné wul tamit kenn ni mu jëlee ay ndaw noonu la jëlee tamit ay mag yaa ngi dégg noonu la jëlee tamit ay personnalité quoi yaa ngi dégg ba pare tamit si. si secteur boo demit da ngay gis ne maanaam maanaam comment dirais-je moor yi bàyyiwul benn secteur parce que bu ñu la nee émigration clandestine loolu day laal secteur de la pêche tamit parce que ñu si bëri ñuy yóbbu gaal yi ay pêcheurs la ñaay de nga ñëw si côté côté ndox si côté kii bi transport routier accident yi tamit même chose yaa ngi dégg kon 2023 moom mën nañ ne c'est une année meurtrière quoi si on se réfère maanaam si li ma wax nii daal su ma man su ma si référoo mën naa ne c'est une année boo xamante ni daal yàlla na fi géej am lu mel ni ndaxte année bi mooy li ma la léegi bu muy tàmbali rek sa annoncé woon na couleur yi bu yàgg pour wane que ne année bi moom ñu nara a dee dinañ bëri ndaxte prix ñaari accident si kilo ak sakal te ñaari accident yooyu man lu ma siy gën a yéem mooy que maam dañoo si kilo ak sakal boo ko bindee dañoo de am ñaari terme la yoo xamante ni waaw boo ko bindee maam boo ko bindoon sax en arabe lay lay gën a da lay gën a firndeel na lii dañoo ndoroo hmm. kon loolu signe la daal en fait dafa am loo day annoncé benn benn lu nar a xew da nga ñëw ba ci digg année bi mois de juin manifestation am si dëkk bi ay ndaw yu bëri ñaax seen mbakkan yaa digg si anam yoo xamante ni ba léegi kenn mënul la ko expliquer wax mënuñ ne bavure la parce que état bi deful enquête def tant enquête amul lu ñu wax ne lii la yaa ngi dañuy naan dañuy gars yi ñooy njott rek ñii tamit di wax lu ñu seen seen yëg yëpp ku si ne ak tamit di xool video yi gis ne lii la mais kenn amul sañ-sañ ne lii la mais mën nañu wax naal 23 personnes dee nañ diggante le premier ba le ci ay manifestation ay dégg loolu tamit lu ñuy ñaalu la ñëw nag yokk ci nag mooy li ma la njëkkoon wax mooy les chiffres de l'immigration yi nga xamante ni kenn mënu ko lister kenn mënu la wax ren tant de jeunes ñoo dee ci géej bi kenn mënu ko parce que maanaam da ngay dañ naan la bato gaal bi dem dem na kenn gisagu ko ba léegi wala ñu ne la gaal bi defoon na cent nit quatre-vingts nit yi dee nañ ay dégg benn gaal rek bu ay quatre-vingts nit dee yeneen gaal réer kon mun <clears throat> ñu la wax tant de personnalité wala tant de personnes ñoo wala tant d'individus ñoo dee ci immigration clandestine bi kon yàlla nañu yàlla musal ci li ñuy dund ren ba nga xamante ni bu jeexee vingt 2023 bi 2024 doon année boo xamante ni waaw yàlla na tàmbalee si jàmm jeexee si jàmm tey xam na ne année électorale la année mm-hmm. électorale moom ñëpp xam nañ ne moom mm-hmm. day bari ay affaires yu doy waar waaw yàlla nañu yàlla musal foofu laa yem waaw Kourizita je pense que doyen def na bilan bi parce que joxe na li ci ëpp solo mais man li ma ci gën a marqué mooy c'est une année boo xam ne c'est une année regrettable manaam non souhaitable parce que ci fi ñu may commencer mooy ce qui concerne les manifestations et tout dañu doon gis ay jeunes yu ñàkk seen bakkan nii ñoo euh, xam ne sax manifesté wuñu quoi. ñoo xam ne dañuy jékki-jékki bal daal leen jógee n'importe où mu nekkoon situation boo xam ne seen une situation désastreuse que euh, mënuñu woon sax xam fan la mënoon yóbbu Sénégal yàlla peut-être def na ci wis na ci ndox mu sedd ba bilan bi xaw a xaw a limité wu à ce point donc euh, liñ ci liñ ci mën a jàngate nag mooy que ne peut-être am na lu ko causé parce que moor yi bëri na su fekkee dañ koy cité. Mm-hmm. Euh, wax na lépp fi ñuy ci ci secteur yi mais secteur bi ci gën a triste mooy. ay nit yuy de parce que dañuy manifester wu seen nakar ay nit yuy yuy génn àdduna parce que peut-être situation bi ñu toll situation boobu neexu leen euh, loolu lañ loolu lañ mën a remarquer muy muy année deux mille vingt trois nekk manifestation yi nga xam ne euh, tey li ñu jàppoon Ousmane Sonko loolu moo ko gënoon causé que jeunesse bi génn jàkkaarloo ak loo xam ne mosul am Sénégal. loolu lañ gis nga gis ñu ci ñàkk seen bakkan ñu ciy cité bilan boo xam ne ñii dañuy wax lii ñuy wax lii ku ci nekk jàpp di wax chiffre yoo xam ne moo la arrangé mhm. mais quoi qu'on puisse dire quoi qu'on puisse dire nekk na année boo xamante ne nii je pense que euh, Sénégal mosu ko dund parce que euh, am jaar nañ ci ay manifestation euh, M23 et tout mais gisuñu woon mu am ay mort gisuñu woon mu am yenn kii benn bilan bi donc mun nañ jàpp ne année vingt trois euh, deux mille vingt trois bi ñu nekk mosuñu ko dund te ñaanuñu yàlla peut-être dundaat ko. parce que mën nañ ci citer lu bëree bëree bëri wax na ko tout à mooy que ne ay ndaw yoo xam ne dem nañ ba découragé di jël gaal et di des ci géej gi ngay gis ay gaal yi def plus de trois cent personnes. ñu naan mm-hmm. lan këpp nañ ci géej gi plus de trois cent personnes. donc mu nekk loo xamante ne chaque jour dañ ko doon dund di ko dund même chaque semaine nga gis ñaari gaal yu dem benn ñett benn bi jàll donc bu ñu doon def bilan bi tey suñu la waxee ñi nga xam ne tey ñoo fi ñoo fi ñàkk seen bakkan ci année bi maanaam day dépassé large day day àgg foo xamante ne doo sax comprendre donc loolu rek ça ça loolu rek mën na justifier que ne 2023 c'est une année meurtrière loo xamante ne nii même si côté jigéen ñi parce que gis nañ bilan boo xam ne ci jigéen ñi loo xam ne ça concerne des agressions ak ay menaces ak yeneen ak yeneen nga gis jigéen ñi ci ñàkk seen bakkan bilan bi dépassé na plus d'une dizaine donc loolu rek tamit day day mu ngi mu ngi justifier encore une fois que ne c'est une année meurtrière ñu dem ci côté góor ñi plus de quarante cinq yoo xamante ne ni Euh, ñii ci manifestation lañ de ñii dañ leen fekk agressé leen ñii leneen ak leneen la dernière fois ñu ngi koy ñu ngi koy noté euh, au niveau de Mbacké mm-hmm. ci benn station boo xam ne dañu fekk mm-hmm. gérant bi si biir mm-hmm. ray ko mu nekk ay ay ay ñaawteef yoo xam ne maanaam loolu yëpp si même année bi lañu la ñu sentir sénégalais bi moom mu épousé boobu boobu boobu comportement parce que peut-être situation bi moo koy justifié donc man loolu rek moom si gën a marqué ce qui veut dire que ne war nañ tamit agir beneen beneen façon maanaam 2024 bi ñuy jëm dirigeants yi ñu xool nan la ñuy diriger Sénégal parce que loo gis loolu daa am lu ko sabab ñu xëy ñu xëy rek dem ci benn situation boo xam ne ñii dañuy dee fii ñii dañuy dee fii dañu dem ci situation boo xam ne am na lu ko causé donc ce qui est ce qui est à derrière de de tout ça donc xam nañ ko je pense que ne loolu mooy première euh, premier point bi nga xam ne ci lañu war a agir parce que bu fekkee da ngay dund si dëkk boo xam ne amul amul paix amul jàmm amul dal je pense ne doo am xel bu dal pour nga liggéey doo am xel bu dal pour nga mën a dund sa dund yu bëri tamit da doo ko mën def te loolu lañ dund ces derniers temps parce que tolloon nañ moment boo xam ne dañ doon xëy euh, sentir ne dëkk bi kenn ñëwul yéen dem liggéey donc loolu noonu liberté amatu fi. Mm-hmm. te dañu nekk si dëkku liberté donc loolu mooy premier point bi nga xam ne kan kii nekk président je que ne foofu lañ njëkk a agir mhm. mooy gën xool nan la def justice bu Sénégal ñu xool sécurité Sénégal xool ko ci côté yëpp parce que dëkk bi amul sécurité si on le dit amul sécurité ñun ñëpp bu timis jotee yaa commencé tiit parce que tout moment mën nañ la fekk fi la mhm. nekk donc li ñu yor si armée li ñu yor si ay si police yor ko si gendarmerie que ne loolu tamit ñoom ñu ngi ciy peut-être pour que 2024 ñu am beneen taxawaay boo xam ne bu wute la ak bi nga xam ne tey moom lañ taxawee képp koo xam ne foo mun nekk ngay dox li nga xam ne peut-être am na ay nit yu nekk sa ginnaaw yoo xam ne ñu ngi lay sécuriser. Mm-hmm. parce que ñun ci nit ñuy dundee amatuñu sécurité ñun ñëpp laa lay wax na donc loolu ay question la yoo xam ne ñoom war nañ ci di ay réponses ay réponses yoo xam ne dañ koy dañuy agir mm-hmm. mais pas ñuy wax pour que Sénégal yi di consommer consommer seen ay paroles parce que dépassé na largement côté boobu donc euh, li ma ci mën a tënk daal mooy que dañuy ñaan peut-être. 2024 nekk année boo xamante ne nii duñ dund liñ dundoon parce que liñ dundoon ñaanatuñ ko yàlla dund vraiment. merci beaucoup vraiment am voilà Cruzita euh, euh, comme ni ko Abdourahmane ak Ibrahima waxee 2023 euh, ça a été une année très meurtrière fi nga xam ni moom mooy Sénégal déjà dañuy ñaan ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan yàlla yërëm leen mm-hmm. xaare leen àjjana et li fi jot a xew mu wañ fee amaat ci yeneen année yi nga xam ne moom moo ci topp bu ñu gisee nag li nga xam ne moom mooy de maanaam maanaam ñi nga xam ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci 2023 bi mën nañ ci citer comme Abdourahmane li mu wax accident yi nga xam ni am na dès le début de l'année de l'année ñu gis ni mu am deux deux accidents benn bi def 20 morts beneen bi def 42 morts mu doon doo xam ne lu méttee métti la fi nga xam ni moom mooy Sénégal touché woon nag ñu bëri fi nga xam ni moom mooy ci réew mi parce que ñi ci ñàkkoon seen bakkan euh, takk woon nañ lool ba taxoon sax ñu jëloon ay mesures parce que ñi ngi doon wax ni euh, à partir de 23 heures ba 5 heures oto euh, buy buy def transport interurbain maanaam buy jógee euh, benn dëkk dem beneen dëkk amul droit daw ñuy xool nag ndax mesure yooyu dinañ ko appliquer parce que à chaque fois bu ñu waxee ni ay nit ñàkk nañ seen bakkan ñu jël ay mesures pour loolu bañ a reproduiraat wala pour loolu yampi il faut ñu jël ay mesures loo xam ne dañ koy teg en place pour euh, yooyu le bañ a amati parce que accident yuy def euh, parce que bus yi def accident li muy causé ci mort dafa daal di bari loolu ñu gën a xool li nga xam ne euh, moom mooy mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko bokk na ci tam oto yi nga xam ne wax nañ ni oto amatul droit bu dee oto bu buy daw amatul droit def plus de dix ans bu defee plus de dix ans amatul droit daw bu def bu dee véhicule yi nga xam ne dañuy def li nga xam ne moom mooy transport marchandise quinze ans lañ leen may loolu aussi gisuñu ko parce que ba tey ñi ngi gis ni car rapide yaa ngi daw njaganjaay yaa ngi daw bus yi te yooyu yëpp def na euh, waxuma la 10 ans sax mais plus de 15 ans donc euh, loolu euh, bokk na ci yi nga xam ni euh, war nañ ko peut-être xoolaat ngir yenn yi parce que am na yenn yu bari yoo xam mën nañ ko éviter parce que booy xool parce que dangay ngay jël dañuy jël toujours référence ci pays yi nga xam ne ñoom ñooy pays occidentaux yi yu bari ci yu mel noonu du fa am mhm. parce que ñoom dañuy prendre le devant ci yenn yi maanaam du laxiste ñu peut-être comme ñun c'est pas pour wax ni pour pour xaste wala dara mais c'est c'est un constat qu'on fait dañuy bàyyi lu bari muy jàll te loolu parfois de indi ay accident yoo xam ne li ciy jóge euh, du neex kenn donc euh, ñun li ñuy wax moom mooy peut-être accident yooyu noonu am na métti na ñu bari teg nañ ci seen bët ñu bari ñàkk nañ ci seen mbokk mais li gën mooy mu bañ fi amaat te pour mu bañ fi amaat wala euh, pour nag bu même bu amee sax dégâts yi mën a minime ñu mën a jël mesures yi nga xam ni wax nañ ko ñu daal di koy appliquer ci fi nga xam ni moom mooy tali yi leneen li nga xam ni tamit gis nañ ko euh, ci euh, réew mi mu doon loo xam ne c'est déplorable moom mooy immigration clandestine comme li euh, Abdourahmane wax ak Ibrahima gis nañ fële di dëkk bi ñuy wax Fass Boy gis nañ drame bi nga xam ne am na fa mhm. plus de soixante-dix personnes soixante-dix jeunes dee si benn si benn dëkk loolu c'est énorme c'est énorme c'est un c'est c'est un c'est une tragédie li xew foofu foofule di Fass Boy xew na tamit fële nga xam ne moom moo ca diwaanu Bargny mhm. ñu bari ñàkk fa seen bakkan sans immigration clandestine euh, comme ni a wax Abdourahmane du ñu xam sax le nombre ñi ñàkk seen bakkan ci euh, li nga xam ne moom mooy géej gi te loolu aussi comme li ñuy wax rek c'est des choses yoo xam ne mën nañ ko éviter euh, parce que am na loo xam ne bis boo ko defee ci sa réew say ndaw mhm. dootuñu soxla di jël gaal di dem bitim réew ngir amee fa li nga xam ni moom mooy koom-koom donc loolu noonu c'est c'est des choses yoo xam ne peut-être comme li Ibrahima wax le président à na ci gën a bàyyi xel ngir yooyu population yu aussi euh, du duñ ko bàyyi en reste parce que gis nañ ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan euh, ci manifestation yu jot a am euh, ci année 2023 bi mu doon rek année boo xam ne comme niñ koy wax c'est c'est une année ba tey rek beneen drame boo xam ne xew na fële ca Derklé sept personnes d'une même famille mhm. décédées ci explosion gaz loolu tamit marqué na année te ñi décédé ils étaient au nombre de onze mais sept personnes yoo xam ne ils sont issus d'une xam ne xew na ci année 2023 bi daa di metti loolu euh, fi nga xam ne moom mooy Sénégal mu daal di nag touché ñi nga xam moom sensibilité euh, sénégalais euh, yu yu bëri mu doon nag comme ni nga koy waxee rek une année fi nga xam ne moom mooy Sénégal dernièrement ñi ngi gis bébé yi nga xam ne kii di Ndella Madior Diouf yore na leen ci pouponnière bi ñu ngi wax ay six bébé yu ñu enterré yoo xam ni clandestinement te xamuñu ni sax peut-être ndax ëpp noo ko ou pas donc gis nañ daal ay drame yu bëri yoo xam ni xew na ci Sénégal yoo xam ni dafa daal di loolu ci année 2023 bi nag euh, ñuy ñaan nag yàlla euh, peut-être drame yooyu des ci 2023 bi 2024 euh, bi la mu doon des jours meilleurs pour pour Sénégal yéen ñi ñu ñu gëj ko fee gis Cruzita. waaw d'abord ban gis-gis laa si am avant ma ñëw si gis-gis bi damay ñaanal ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fi bàyyeekoo yàlla yërëm leen ndaxale leen àjjana firdaws ñoom ñëpp au delà de ça Désiré Rama et Abdourahmane on les a fait le donc man je vais plus m'appesantir si li nga xam ne moom mooy peut-être lan la ñu war a def ba nga xam ne loolu du amati parce que boo xoolee c'est les mêmes faits gis nañ li ñu wax accident immigration clandestine mm-hmm. wala immigration irrégulière wala ay meurtres yoo xam ne c'est lié à des agressions loolu moo fi am mm-hmm. et buñ tax defee seetlu taxaw si accident yi Rama a bien fait de rappeler euh, elle a elle a très bien détaillé gis nañ ne ba fi accident yooyu ñaar accident yi bi xewoon 6 kilos ak beneen bi xewoon fële. récemment Sakal y avait plus d'une soixantaine de morts. Mhm. si ñaari accident yooyu. après cela ñun Sénégal fii dañ dama koy wax sa góor dañuy nekk benn société boo xam ne on est tellement émotif. Mhm. du moment que accident am wala meurtre am da ngay gis ñun ñëpp dañuy génn waxandoo. état ne def lii état ne def lii état ne def parce que on est émotionnellement noonu lañ mel quoi de nature léegi loolu dinañ ko jooy ñaari fan ñetti fan wax ko ci télé yi wax ko ci rajo yi mais au delà de ces trois jours là ñëpp fàtte ko mm-hmm. mel ni dara mosu fi xew c'est comme ça réaction boobu nag tant que ñoo ngi koy am on va continuer comme ça mm-hmm. état jëloon na ay mesures à travers le ministère des transports mm-hmm. comme yi ngi si wax interdiction ñuy daw de une heure du à à cinq heures nañ ko ñu utiliser ay porte bagages yoo xam ne tamit on avait interdit ça parce que souvent boo xoolee accident yooyu li ko war a def si bëri bëri mooy ay surcharge lay doon surcharge bagage surcharge personnel yooyu lay doon parce que bis boo xam ne normalement 60 personnes la war a jël wala 50 personnes nga yëpp ko ba 80 personnes vous voyez 70 wala 80 ak bagage yu ne si kaw mhm. c'est compliqué mhm. man euh, je pense que au delà de surcharge boobu am na loo xam ne tamit dañ ko war a def gis nga Sénégal il faut ñu def le renouvellement du parc automobile Rama moo ngi koy wax sànq sept places man avant may judd waxuloo man waaye sama maam mm. sama maam sept la ko fekk. ba mm. léegi sept places ñu ngi continuer daw boo demee dans les gares routières demal boo maraîcher Pikine am na ay sept places ay nit ñoo koy jël di jóge Pikine di dem di dem Saint-Louis wala di jóge Pikine di dem Touba est-ce que nit ñooñu sax ñoom en âme et ñoo ngi xalaat ci seen ci seen sécurité. parce que man surplace oto boo xam ne def na plus de trente nan la si nit mën a duggee toog consciemment dara dalu ko doo am benn xalaat au de cette place y a les Ndiaga Ndiaye y a les mm. car rapide yoo xam ne dèjà bu mm. ñëw Sénégal bu ñëw fii la oto bees la bu ñëwee Sénégal dina def fii plus de dix ans quinze ans di daw mm. oto yooyu bu defee accident war na la bett wóor la bett qu'on se réalité il faut ñu bàyyi naxante parc automobile ak accident yi day continuer mm. mais fii nag duñ ko def parce que dañuy bañ ku leen mere déjà boo commencé woon ne da ngay renouveler parc automobile les transporteurs commencé génn association yi ku ne di kaas góor ma xuma mm-hmm. parti keneen parfait et puis seeni intérêt la ñuy jiital tant que ñu ngi commencé di jiital suñuy intérêt au détriment de l' Sénégal Sénégal dina yéex avancé il faut ñu renouveler parc automobile bu mu bañee accident yi am fi teg ay mesures yu sévère sévère sévère di ko appliquer amul Masamba amul Mademba amul Kumba am ndey amul Kumba amul ndey ku jaar su yoon ñu teg la si yoon ku jaar si yoon ñu bàyyi la nga dem au delà de de de loolu des accidents ko fàttee wax parce que gis nañ ne accident yi corruption la mm-hmm. boo xam ne en âme et conscience wóor na ne oto bi warul daw yow au lieu nga arrêté ko immobiliser oto bi wàcce ñi ca nekk pour leur sécurité waa nañ ñëw jox la 2000 francs wala 1000 francs nga bàyyi ko mu jàll. problème bi kañ nañ koy réglé yàlla corruption te loolu ñi jiite réew mi xam nañ ko bu baax a baax a baax. xam nañ policiers yi ñu nekk ci mbedd bi xam nañ ñeneen ak ñeneen liñ nekk ci mbedd mi loolu tamit mu nekk loo xam ne nit ñi duñ ko wax nit ñi duñ si pointé du doigt mais gën a accentuer accident yi loolu ci la bokk. parce que ñoom ñoo ne di contrôler la circulation xam nañ oto yi war daw xam nañ oto bu warul daw xam nañ oto yi nekk dans les normes xam nañ oto bu nekkul dans les bu fekkoon oto bu ñu gis nekkoo dans les normes ñi la far la wala immobiliser bu fekkee chauffeur ba day jar ñu teg ko ay conditions ay daan yu ñu teg ko yu bare bare dana wàññi au delà du renouvellement de parc automobile léegi bu ñu si li nga xam ne moom mooy l'immigration clandestine eh, c'est déplorable bi nga xam ne moom moo fi liyoon Wakaam avec Guet Ndar mu mel ni mënuñu ko lim boo nekkoon fii di ko lim Rufisque yooyu yëpp fi ngay toog c'est des c'est des centaines ëpp na ay centaines de morts sax mënuñu mënuñu def le bilan parce que amul benn bilan boo xam ne lu officiel la mu nekk lu déplorable lu minéral parce que c'est des des jeunes ñoo xam ne ay ay yaakaar famille lañu woon bu ñu demee ba di si gis ay jigéen di si gis ay bébé c'est c'est c'est tellement grave mais loolu yëpp li koy waral mooy gis nga. ki nga xam ne dafa juddoo Sénégal yaroo Sénégal màggoo Sénégal bu amoon lu ko gënal lu génn Sénégal et kooku condition yi muy dund fii c'est dafa metti la fois passée doon nañ def interview ak benn benn jakartamaan benn cek tak waa ji c'était c'est écœurant day xëy parfois nee na du am en fait pour mu du am lu mu solee essence du am 1000 francs bu mu solee essence day xëy parfois parfois mu toog seen waa kër woo ko ne ko dañu couper courant bi kooku nan lay def loolu mooy pousser nit ñi ñu si bëree bëri même bu fekkee au fait kenn du ko justifier agression kenn mënu ko justifier ñun ñëpp dañ koy condamner dañ koy dénoncer parce que c'est las d'abord que yow benn citoyen sa moroom nit dem liggéey ba wàcc nga fekk ko ci mbedd bi teg ko jaasi wala jël lim yor parce que loolu kenn mënu ko justifier mais yu mel noonu moo koy indi. boo gisee agression yi gën a yokk si dëkk bi Dakar boo circuler à 19h booy rey téléphone. xamal ne à tout moment mën nañ këf sa téléphone dem mm. te doo si man dara ay borom moto ñoom ñoo koy këf dem doo si man dara parfois da leen di comprendre mais parfois tamit doo ko mën a justifier mais loolu à d'abord travers d'abord parce que état il n'a pas la prérogative mu jox ñëpp travail mënu ko sax il n'en est pas mënu ko mais mën na def li nga xam ne les conditions yoo xam ne da koy mettre en place pour ñëpp ñoo xam ne ay sénégalais lañ bëgg a liggéey dinañ leen permettre ñu toog si réew mi liggéey loolu état mën na ko à travers des fonds ak yeneen ak yeneen xool noo xam ne day def ba ñi xam ne dañu bëgg liggéey dina koy woyefal seen kaw ñu liggéey parce que y a des businessmen ici wala y a des milliardaires ici bu fekkoon état yombal na leen li nga xam ne moom mooy les impôts wala les taxes pour ñu danañ mën a créer emploi bu ñu xam ne ñoom ñooy jeunesse bi dinañ toog fi Sénégal euh, li nga xam ne moom mooy les manifestations les manifestations aussi tamit c'est à déplorer parce que bu ñu dee wax ne Sénégal est un pays de droit le Sénégal est pays de démocratie rien ne peut justifier xale boo xam ne dafa génn di manifester parce que am na lu ko metti nit ñi doxal réew mi neexu ko wala am na lu ko metti leader politique am ni ñu koy ni ñu koy toppee neexu ko di génn di manifester wu. alors que ñun xam nañ ne Sénégal on a un boo xam ne en fait on ne pas on n'est pas violent. de nature on n'est pas violent le Sénégalais n'est donc bu ko pousser à l'extrême bis boo ko pousser à l'extrême rek bu révolté woo ça peut amener ça manifestation yi ñu fi gis récemment au mois de juin ba mu jur ay nombre de morts à cause de ça hmm. am nañ ay xale yoo xam ne dañuy génnoon di manifester parce que dañuy jàpp seen leader wala parce que dañu am lu leen metti ci ni ñuy doxale réew mi gis nga d'abord euh, notre police euh, seen formation bi du ma leen pointer dëgg yàlla ils sont entièrement reconnus ay professionnels lañ mais ñun fii Sénégal li ñu gën a constaté mooy on a am police répressif répressif mooy boo ko déggee mooy police boo xam ne ñoom jàpp dóor rek lañ xam ils sont toujours dans la répression mais avant nga ñëw ci répression boobu yow nañ utiliser li nga xam ne moom mooy dialogue mhm. ba pare waxtaan ak ñoom ba pare waxtaan ak xale yi ba pare bu fekkee nag dem nañ ba répression boobu sës fi ñu xam ne moom moo fi parce que ils ont le de la violence légitime loolu état moo leen ko may mhm. mais tout compte fait war nañ def bi nga xam ne mooy 2023 daal li nga xam ne gis nañ ko fi ci merci beaucoup merci Cruzita maa ngi ñi ma bokkaloon plateau bi ñoom Abdourahmane ñoom Rama Ibrahima ñoom ñëpp di leen saluer <laughs> di leen wax ne kontaan naa émission bi ça s'est bien déroulé di saluer ñi xam ne ñoom ñoo nekk derrière la caméra muy la partie technique ñoom Massamba ak ñoom Fatou René ñoom ñëpp maa ngi leen di ziare <laughs> den wax à demain incha allah ak beneen émission. ak kii bañ ñu tudd ko. <laughs> internautes Mat Set comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure nag dañuy ñëw euh, entamé sunu deuxième partie émission mu ñeel rubrique culture ñu fas yéene ko waxtaanee di si ànd ak Abdourahmane laata loolu damay nuyu ñëpp ñu ñuy suivre en direct sur YouTube Evidence TV ñu ngi leen di nuy bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen répéter aussi rek parce que la répétition peut-être elle est pédagogique ngeen di wéy di abonné tey partagé te di bës ci cloche de notification bi ngir mën a jot en temps baax a baax merci beaucoup chers euh, internautes no non crayon bi duma ko jox dama koo jël dama koo nangu fi ne